grand magal de Touba édition 2023 18 safar 1445 di bés bu murit yépp di waat seen chaîne univers info tv fas yéene see ànd ak yéen si ay documentaire ay interview wala bokk ay kuréel xasida si maanaam lépp luy wane liggéey ak jàngale lépp sëriñ bu mag bi yéen ñi nga xamante ni bëgg ngeen a fësal seen ay produit mën ngeen ñoo jot au 77 468 54 52 18 safar suñu yitte Cheikh Tidiane waaw Cheikh Tidiane euh, ñu ngi lay jaale rek li ñu bokk. Mm, voilà man leen di nuyu di leen jaajëfal euh, xam ngeen ne tey ci tiis la nekk comme ngeen ko xamee ak génnu àdduna Fatou Kiné Deme euh, te léegi lañ ko denc mu nar fi bàyyi nag li ñuy wax vide vide bu rëy a rëy parce que Fatou Kiné Deme li ma taxawal ni sax xam na ko di Bouba. dafa nekk nit koo xamee ni euh, foo ko sooy fàttaliku déjà li mu génn àdduna rek looy fàttaliku ci moom mooy euh, bonne humeur bi nga xamee ni moom lay àndal tout le temps euh, nekkoon koo xamee ni rédaction ambiance bi moom moo koy andi nekk xaritu ñëpp ba pare nag nekk nit ku baax comme ni ñu koy waxee une belle âme mais surtout une professionnelle dans le parce que déjà li ko yóbbu mooy feebar la boo xamee ni du feebar bu bees lu yàgg la ci ci ci moom xamoon na ko xamoon na garawaayu feebar bi mais taxul à chaque fois su doon liggéey si euh, doo doo ko xam mais bien vrai nag dina am ay bés yoo xam ne da koy gis euh, mu leer la ne kii euh, am na lu ko métti sonn na feebar bi sonal na ko mais à chaque fois day dem faju ji def ay séance ñëw waat ci euh, liggéey bi te professionnalisme boobu je pense que lu koy euh, firnde bokk na ci euh, grand reportage bu mujj boo xamee ni moom la def su page Facebook am sax mi ngi fa muy benn grand reportage te sur les morts subites ko defoon ci hôpitaux yi boobu bi ñu koy tourné bu fekk mi ngi ci feebar te feebar bi sonaloon na ko mais yow soo koy seetaan en tant que euh, téléspectateur mënoo xam ni kii dafa feebar te loolu mooy wane euh, professionnalisme bi nga xamee ni moom la àndaloon malgré euh, toutes ces difficultés da ko doon jël teg ko fële def liggéeyam ni mu waree après su paree wéet ak naqaram jooy ko mais à chaque fois su ñëwee liggéey si ñun tamit ñi nga xamee ne xam nañ ci dara toog waxtaan ak moom jéem a dalal xelam ba tey ji la def li gën mu jóge fii et euh, c'est une grosse perte comme ni nga koy waxee euh, léegi nag amuñu lu ñaanal ko euh, yàlla xare ko àjjana. alors Chérif tey boo mu doon ñëwaatal rek tey ci Cheikh Tidiane alors boo doon ñëwaatal ñun rek ci li nga xamante ni moom moo di relation bi ngeen sekkoon ak ni ngeen doon dundee ci télévision bi. bon relation bi nga déjà démb si guddi dama doon toog di xool statut ku ma gis mu statut ma naan. kii kii kii xaritu dem la woon ku ma gis mu mel ni ki koo ci gis da yaakaar ni moom moo nekkoon moom moo ñuy wax di meilleur xaritam c'est-à-dire que xarit ñëpp la woon mais dem nañ ba am de dix ans ci euh, fi ñu doon liggéeyee ça je pense que euh, Fatou Kiné daal euh, nit nit ku baax la relation man nu ma gis koo xamee ne amoon naa moom problème daanaka ci liggéey nag des fois liggéey bi dina métti ngeen jàppante mais moom particularité bi mooy da ngeen di jàppante léegi ci liggéey même pas cinq minutes ngeen nekk di kaf di retaan mel ni newul yéen ñaara doon raak sànq fële boo xam ne bi jëm ci euh, liggéey bi la et tout ça ça démontre la personne qu'elle était vraiment nekkoon nit entier sans façon vraiment demam bi daal comme ni nga ko waxee euh, ñu wéetal comme ni ma leen ko waxee ci début bi euh, rédaction bi ñu nekk à chaque fois moom moo yor ambiance su ñëwee su liggéey suul da ngay xam ne tey euh, Fatou Kiné néew fi malheureusement nag comme ni ñu koy waxee la volonté divine moom kenn mënu ci dara. Mhm. je pense qu'on ne peut que l'accepter di ko ñaanal. alors ay moment wam yu mujj euh, lan ngeen dénkante comme ay kàddu. Euh, moment yam yu mujj oh, man euh, xam la dernière fois dëgg dëgg moom ci liggéey bi. xam nga dama doon def journal 20 heures moom mooy def journal 19 heures boobu dafa ñëwoon di def ci journal. toog di préparer mais fu mu toog di préparer mi ngi jooy di jooy di jooy di jooy ba ñu ko ñoo dem tey journal bi mënoo ko def jàppale ne nga dem secteur noppal parce que xam nañ lu mu doon jooy xam nañ ci feebar bi la woon te à chaque fois doomam la doon xalaat man moom je savais un peu condamné même si de loolu ko nangu mais chaque fois si waxtaanam day xalaat doomam te su ko xalaatee rek jooy rangooñam ñi tuuru nag moom ne ko Fatou demal euh, après Ibou Kane jël journal bi euh, def ko jeu boobu à sa place après quelque temps après nag le ko feebar bi daaneel ñu hospitalisé ko euh, tey jii lii xew-xew. Cheikh mu mel kon dem bi bett ko peut-être bett neen mais comme li nga xalaat doom ci biir feebar bi nekkul woon ko bett. non non non non bett ko même si feebar à chaque fois nga continuer di am espoir mais xam nga moo am na genre feebar yoo xam ne soo ko amee suñu ko diagnostiqué. dëgër rek moom mooy tax nga <laughs> ngay continuer di espérer waaw mais yow dangay xam ni que euh, yàlla yàlla moom moo yor mbakkan quoi moom mooy faat nit euh, ngay gis ko nit bi feebar ba sonn du dee gis xamee ni dara jotu ko moo xëy euh, dee mais moom xamoon na nit elle avait une maladie très sérieuse elle était tout temps dans ses séances dans son traitement te li ñuy wax rek psychologiquement dafa métti mooy sur les morsures euh, bi nga koy def yow fekk xam nga ni yow sonn nga xam nga ni feebar bi tey lan moo la gën a marqué ci moom loo xam ne à tout moment doo ci génn sa bopp lu ngeen dund. mooy euh, neex a nekkal bi rek neex a nekkal bi euh, neex deret euh, mën a kaf di foo ak ñëpp à chaque fois man heure moo ko xalaatee depuis bu ñu décédé ba léegi xaqataayam moom mooy ñëw à chaque fois il avait l'habitude de rire aux éclats waaye tout le temps tout le temps été joyeuse lakkal ñëpp moo tax ma la dina fi bàyyi vide mhm. dama moom dinañ ko yëg d'accord la koy ñaanal yàlla ko àjjana ñu ngi la koy mosaw aussi ba pare euh, taxaw doomam doom su doom moom la fi euh, bàyyi muy Cheikh Diane sax ñoo euh, ñaan rek yàlla téyal ko boppam uufal ko boppam ba nga xam ci yaayam na moom yàlla mu sotti jërëjëf si merci Thank you.